nañ ñu ngi lay sant di la gërëm ñaanal la ci la ñuy dëkk guddeeg bëccëg képp ku nekk Kër Mbaye Fall suñu diwaan ji nag sëñ bi jàppoon nga ñu ñu jiitu gën ñu ciy dugal waaw ñu ngi la koy ñaanal yàlla na la fi suñu borom yàggal waaw kontaan ci yow rek lañuy ñuy def du fii rek fépp fu ñu mën dugg ñu lay sagoo ñun ñu ngi lay tiitaroo kuy sa sëriñ rek Cheikh Ahmadou loolu rek doy na yàlla la fi suñu boroom yàggal kaddu yi nag jëwriñ moom ma nga tëdd dafa xaw a sëg waaye wax na wax mu ne ma rek demal waaw looloo ko jàpp sëñ Samba sax wax na ko nee na ko fan yëpp doon la wax ndax tey waaw wax na ko sax léegi waaw gën koo ñaanal gën ñoo ñaanal sëñ Alaaji Tànjaan it ma nga ci kër ga moom it bis ko bokk ak gën koo ñaanal waaw waaw waaw waaw alaaj naa ñaan la yi waaw sëñ bi yàlla fi yàgg waaw ñuy laam-laamee fi nekk rek waaye man xam naa man xam naa bu baax waaw ñuy wax ñëpp dañuy kii mais man xam naa xam naa ne lan ah waaw xam naa lan ma newoon am na loolu sax duma ko gëréel mbàkke laay waaw asaka ci sax gisaguñ ko parce que loo bëgg rek da ko am waaw man kay ku may wax dama naan xanaa kay mu bañ a bëgg waaye lu mu bëgg dina am booy bu la neexoon xanaa da nga koo bëggagul fi mu bu la neexoon foo nekk wàcce bu la neex wàcce ko loo bëggul rek laa mais loo bëgg rek dina jàppandi loolu nga ma waxoon de tey ci laa moom laa gis ba tey billaahi waaw kon Mbàkke waaw taarkaan jëmm ji nga ñu booleel nag jëmm ji nga ñu booleel nag di sëñ Cheikhouna mi yàlla na ko fi suñ borom yàggal te gën a wér ndax mbooloo lu ci waay wax xanaa kay yow yaa dul ñëw waaye loo ko wax mu taxaw ci waaw te it woyof gi moom sëñ bi yàlla na yàlla na nga boolee yàgg ak ñoom waaw gis naa ci moom loo xam ne nii te nit it wax na ma ko yàlla na ko fi suñ boroom yàggal waaw Mbàkke jërëjëf bët ci yow rek la ñuy def waaw bët ci yow rek waa diwaan gi nag a ngi ni suñ diwaan gi nag jiital ko rek jiital ko de waaw kay jërëjëf bisimilah naareel nga ko naareel nga ko naareel nga ko naareel na lool waaw naareel yàlla na nga fi yàgg mbaa jërëjëf jërëjëf jërëjëf suñu xol seetlu bi li nga wax rek da cee am loolu des koy fàttaliku bi yàgg. di ko dund bi yàgg. Mm-hmm. tey door a dikk. Mm-hmm. tey lu nu gis nii ci taw tawféq. Mm-hmm. gis ko ci jàpp ndam. du asakay liy dikk. dëgg la fi ne noo ngi toog ci béréb nii mu tawféq lool. waaye liy dikk ci sunu kanam. li may wax waxtu na nag léegi saa su may wax damay wax ni. bu leen xool kiy wax. ndax jaamu yalla bu doye di la te xeebu lool mm-hmm. waaye coobare sun borom mm-hmm. ak jaglem mm-hmm. ak ngeeneelam ci jaam bu ko soob rek la koy def da ngeen gëna sant da nañ gëna sant sax la wax da gën gëna sant ñun ñëpp ci zahir ak ci batin na ngeen gëna boole seen bop te na ngeen gëna nekk ben ndax sun borom limi def manam lu jëm lu ba noppi lépp lu jëmm la ba noppi. ñaan mu sottee ci nun waaye tey jii. Mm-hmm. bu ñëwoon fanaani naa ca xel keroog la lii jëmm mm-hmm. dana leen gën a gaaxal sax. loolu moom la. Mm-hmm. du man du keneen ci biir mbooloo mi. loolu coobare sun borom la joo xam ne dafa def te fee xam. ci biir lislaam ci biir keppaaruk Serigne Touba Xadimal Moustapha. muy jëf yu wër a bir. yu war a leer yu war a set wecc yu war a jëmm lool nag. te lepp lu ci jëm lu taxaw la ba noppi lepp taxaw na ba noppi li ci dess moy ñaan mu sagal nu nu bokk ca ñu jëmmal waye lepp jëm na ba noppi lepp taxaw na ba noppi ci mbaxam ak yermande ak tawfexam ndax bis bi ñuy dundal fi tay li nga wax ni ma ngoy net ni soxna mbéd mi barki dem mané ko bis bi ma koy ñëk def kérok man do nga mandogo ci sama bir kër gogé mané ko man ma fa ndogoo mm-hmm. lañ doon lo ci fajar ga mm-hmm. la xam sankal la won du ko fàtte ci benn biir kër lañ ko def keroog bis boobu laa ne man menn man hmm. maa ndogoo ci kër ga muy laylatul xadr boobu hmm. ba mu dellu see ñu defar hmm. ñaari fukki ganaar ak juróom ñett soxna day gee togg mu dellu si waate lañ tàmbali defar nag booba ku ne woon mbir bii ngi fi ndax kenn dana ko mën a jàpp te booba mi ngi fi waaye benn bët gi sukk ko yeneen i bëri bit suñ borom jëmmal na ko ba noppi yoo xam ni boo ko doon misaal ci béréb yi ñuy gisagul nii ca yooya day mel ni pantre ci la ñu nekk nii foofee nga ma ngeen ma doon fekk wute naag fii de fii ñëwit noonu lay mel ak fii li may wax lépp nag mm. néewut gannaaw mm. kanam la ne yàlla nu yàlla dimbali nag saxal nu fi may nu fekke mm. fekkee nu rafet akuk tal mm-hmm. ak tawféex yu yaatu nag mm-hmm. ba kenn ku nekk la mu ëmb ci xolom mm-hmm. yàlla kattanal ko ba mu jëf ci lu kawe njortam te saytaane bañ cee am wàll saytaane bañ cee am cër sant nañ leen bu baax ndax yëg nañ taxawaay bi ndax lii du asakay seeni jëf ci koor bi koor gi tàmbalee ba léegi yéene nga ca daara ja di berneel nit ñi ci anam yëpp ci fànn yëpp ba ci bis bii jëf ngeen lu ngeen man jëf ngeen lu ngeen mënut waaye yàlla mi nga xamante ni dara tëw ko yàlla na leen sëmbatal tawfeex yu ñu gàññ xéewal yu yaatu lool yu baawaan lool dugal nu ci jaam yi nga xëy nag day mbaa yàlla ci mbaaxam ak yërmandeem ak tawfeex te defal nu mujj gu rafet yàlla na yàlla saxal dakk te defal nu mujj gu rafet jërë ngeen jëf jërëjëf jërë ngeen na jëf maa ngi siyaare mañ ñi yëpp nag sëñ Cheikh Fall ak sëñ Abdou Sakkoor ak nga Njaay ak ñoom ñooñu ñëpp mm. maa ngi leen di sant di leen gërëm mm. ñi fi bàyyi ko it sëriñ lay bis bii mm-hmm. ba ma koy tàmbali am na kàddu yu mu ci mm-hmm. te loolee yaakaar naa ni jëmmal na kër Baye Fall ba jëmmal fii mm-hmm. dana jëmmal feneen ak feneen ak feneen ak feneen yàlla na yàlla yokk leer ak mboolem ñu ñu jiitu ji ñëpp te fi des ñëpp yàlla barkeel leen te taxaw leen te sàmm leen te aar ngeen jëf ñi ngeen ko daan àndal noonu sëñ Sadi Diop sëñ Mouhamad Sagna Diop waaw ñoom ñëpp day ña ngi ñuy xaar ca jannatul firdawsi baax yàlla ak yërmandeem jërë ngeen jëf jërëjëf